Euh, par rapport ak euh, mbir moomu ak taxawaayu Baye Ndiaye ak euh, actuellement fi ni mu yëngatoo nii Grand Zal. di ko encouragé rek Baye Ndiaye. Mm-hmm. parce que xam naa ne bu bu ñeneen promoteurs yi melee ni ñoom. Mm-hmm. lam yaakaar naa dina yéex a sooxe. Mm-hmm. parce que dégg naa ko dem mu ne. yéen ñi toog fi ku ci bëgg di nga yóbbuwaale avance. boole ak bi nga yor nii. waaw donc kon kon mayatul mbër yi léegi ñu am taawu sax di toog bañ a bëri. da lay dëgg la. Balla Gaye tamit aussi mu nekk mbër boo xam ne dafa bokk ci làmb. da nga gis ne Balla Gaye ngay gis muy am jafe-jafe mais saa boo ko tëggee stade bi fees. Mhm. loolu lu mu liggéey bu yàgg la. mu des ci moom ñuy yaakaar ne te te tax loolu moo war a nekk. Mhm. c'est parce que Balla tolloogut fu mu jeexale ci làmb Babacar. Mhm. déedéet ah ba jeexal Balla Gaye <laughs> waaw xaajale ko xaajal. <laughs> ay 35 ans yooyu dañu am ñoom 36 ans ñoo jeexal. def naa interview du woon fii laa ko defee. ci yeneen ci yeneen site internet. man damay wax lima ma rek ak lima gis. ci ak li fa ne ak li fa ne yow li fa ne sax ngay wax waaw. wax naa ne Balla Gaye man d'accordu ma benn yoon muy tak ngem bir bi di wacc kaw ngem li. yow ando ci mom ando ma ci loolu. su ko defee yow do gis mbër bi nga soxla ma ci loolu babakar forme bobu du forme bi mu wara beure mom bi mu wara bi ko war a permettre kale yi mu yor. ak xam-xam bi mu yor mu utiliser ko. xaw ma dégg nga ma wala déggoo baax a baax baax su biiram génnee boo biram bu génnee waaw pour yow du def li vivacité bi mu war a am waaw dugg génne boobu mu la doon jiñ léegi def ak gëdd bi mu lay gëdd <laughs> doo lay kurpeñ bëre jaxasoo du ko mun def Babacar dëgg la waay wax naa wax naa ko waxati naa ko dëgg la donc tey mm, gisaat naa ko taa yi nii waaw fan yi day dafa rasenir forme bi mu yor nii hmm. na continuer liggéey ci loolu waratul nangu di jël yenn poids yi hmm. waratu ko nangu. parce que pois bi mu mën a bëre technique yi mu war a mën a bëgg a def. dafa war a xool ci bu muy bëre ak ay Modou bu njëkk ak même Tyson. ak bu muy bëre ak ñoom Ousmane Diop. même ba ci combat ba Modou Lô bi mujjee ah. bu mujjee bii nii. waaw wax naa ko ca ma benn interview. nee naa dama gis Balla boo xam ne dafa bëreeg ni mhm. bëreeg Tapha Tine bëri ak bombor Bombardier mhm. bi Bombardier jël roi bi ci moom mhm. forme yooyu noonu du format bu mu war a bëree àndoo ci même bu ci amee victoire yow bu ci amee am victoire ànduma ci parce que forme bi mu daane même Gris Bordeaux bii nii bu mujjee bii nii man ànduma ci forme boobu àndoo ca forme boobu parce que dafa mel dafa xaw a lent dafa xaw a yéex par pour dëggal li ngay wax quoi ba mu ba mu bëre ñooñu ba ba ñàkk koron bi. Mhm. ba mu ba mu indiwaat ba muy. gàddaayee bay ñëwaat. forme bu mu indi contre bi muy bëre si ak Modou Lo. bi muy bëre ak Gris Bordeaux. ak Gris waaw avant Modou Gris la njëkk a bëreel. ak bi muy bëree Gris. waaw bi muy bëree Gris Gris la ñëw. bëreel bu dee yaa ngi may seetaan li may wax nii xam nga ne dëgg la booy. <laughs> effort yi nga fournir foofu defoo ko ci yeneen combat yi kon loolu mooy sa forme rek jéemal jël form boobu pour nga li la dese sa carrière nga mu nekk lu lu baax lu rafet jéemal def loolu te bàyyi forme yi ngay indi nii xaw ma nag lan moo la lan moo la poussé ba ngay def loolu mais en tout cas daal man sama gis-gis laa wax de pour nga mën a indiwaat vivacité bi nga amoon réflexe bi nga amoon ak xadar bi ngay bëgg a sa bopp mbër yi. Mhm. il faut nga ut indiwaat forme yooyu. Ah, parce que moom xadar lay bëree. merci beaucoup. kon ah. te gis naa taay forme bi ma la gisal bi ngay taxaw di seede ci man léegi nii. waaw waaw ah continuer ci lancé ah, nga gis nii doy na la. non si des na sax quoi parce que. Mhm. il faut. da ngaa bëgg mu gën ci gën ci liggéey rek quoi. mais combat combat ñu ngi koy wax. mook Tapha Tine mook euh, ki nga xam moom mooy Siteu yooyu yëpp combat euh, mais ker dama ker dama laaj ku mel ni Tafa Gueye hmm. moom daa jàpp ne combat Tafa Tine Tafa Balla Gaye ak Siteu combat commercial lañ ko mën tuddee